Holland right now fu mu 12 moo dëgg ñu ngi nii si studio bi. daa indi benn rek nga ne it's Jalimadie Jalimadie I am urging everybody to go and take their vaccine. xoolal Timi Gambian Talents ñu ngi nii Jalimadie mu ngi nii. duñu duñu eh, eh, eh, kii fayal ma dara dama fi free. man maa la war a fay yow sa fans nga ko defal di yow Jalimaadi ni nga mel ñaaw na. weeri koor bu mag bii ma jóg lekkuma defuma ma ñëw si studio amuloo ma wax du ma tabaxal. yaa ngi nii nag sa fans gis ngeen ko nekkee Jalimaadi si oreef lii gën a làppa. <laughs> yéen xanaa yónnee wu leen Jalimaadi sukuri ndogu moo tax mu laapa nii. wallahi sukurin ndogu moom no ñëwul jëli ak gay nun la bugge wallahi ah gay gi nil sukurin ndogu ñewul ñëwul. wa si Paa Ousmane Diouf la ko commencé. si Paa Ous Paa Ous ne may rek la am amu dara krip karam amuko jali ma de nek ni tay gis ngeen ko guddi bi ah yéen a dee toog di wax artiste Gambie artiste gam ñu ngi liggey de. waaye pare suñu mag def na liggey bi rek kamé sen mag. Paa Ousmane. lum def you know project bi project bu baax hmm. man lu baaxul du ma hmm. lu hmm. you know comme xalaat bu rafet boobu dañ so mag la liggéey bi rafet na léegi nga wasi paos ñun ndey mbi la yi nga xam ne yow lifin nga yow nga ah <laughs> mbuucaa mbuucaa mbuucaa mbuucaa nga ñun ku si bu ñu dem ah yow yaa ngi ñun mer neen so yi ngi nii ah, xale bu xew des ah lu tamu des. jali fu mu nekk weeri koor baa ngi nii góor ñu baa yëpp takkaneen jabar ma bëgg a jali looy xaar ah ah célébrité laay na ngaa yónnee góor jali man aw ma jëkkër léegi man bés ni ki tey ah, <laughs> ah suma jëkkër suma eh, suma jëkkër mu ngi seetaan bu indi problème. sa jika tiyal sa jika dede jalimar yuni len sukuri ndogo na wadde ke ne oh, boy bi boy bi boy bi jambar sani sani jambar. lama lolo ok dam len jale su gaay ñewé inen masuma wala de man jegi credit rek ok ah, ok walk walk walk hajo hayal nak la non billahi eh, dama xam dibalé na man de jali ma di kanu te mo mané jël ma di kanu lan mo jël ma di kanu <laughs> ya way sa bopa jël ma di kanu te yeto ya ñaale ko ah kay lolu way waaw kay Laila La ilaha illallah Gambia Dawda Jawara Barika Gambia, it's me, Jelimadi Kanute. I'm urging all my friends to take the vaccine. Yes, yes. Sumastawa ang ini. Angkan. Wow. wow. Bang. Nana bobo benen. Aku bukan mau jadi benen. Hah? Aku bukan mau jadi benen. Sedih ganti aja. Hah? Kamu ah, nggak jadi benen. Mau jadi benen. Mad genat living. Wow. Children Israel get vaccinated and stuff. You're educating people about the vaccine. yow dama bëgg ma gën a explain waaye yow li ma wax doy na soxna si. waaw baax na jërë ngeen jëf. yónnee leen si kër ndaw yi. Gambian artist life matter. waaw fu mu toll nii gis nga kii ah. billahi yow ñaani xaas laa laa def yow <laughs> man mi ma ñibee ba julli ba ah def naka tuddaat jali way man nak ñaani xaas yo xamne duma ci gis dara no yow ñoo fa suma ñegi kirari ma yow wa diga ni xéela mu nga sa ligé bi hmm. teelaa la ko wax hmm. xam ba wi ma hmm. naar bi fé ko xawam man Fatou Samba wa xam ba lu tax ah, kii ne ana camara mu ne that's my star wa bi ko Samba la ligé nañ lu bari def nañ interview yu bari su la gën gam hmm you know and then Gambian talent mom wax dëgg gambien artiste ñoo leen war a delloo njukkal ah. fi mu toll moo tax bii ñu ñëw mm-hmm. transu mm-hmm. soxlañ ko si ñun mm. because Pa Ousmane Diouf jaral nañu loolu ah kon jël yow man maa la waroon a indil cek hmm? xama dem ak moom cek mm. gis nga cek mu nga <laughs> ma ana ana suma sista mi ana camara ana kanawana mu baax mi suma magi boppa ki nga xam ne ay walis la may tegal di ma ne sant lu ah waxal si moom kii papaam ak suma papa tight friend ne déedéet kañ ana suma sister ah amul lim maa wasi àdduna du ma ko def ndeysaan you know and then soo gisee man ma xam baalu daabu ak yooyu mm-hmm. yàlla moom la xam nga mm-hmm. uy ma lim mm-hmm. na ma trop soo gisee la bokk ana and then mbaalu mee ma xaalis moom ah. la pour moom ah. ankay ah, ah, moom soo ko wéyalee man duma dee gaaw a mee waaye incha allah mm. ah boobu interview la ñu am interview bu rëbb bu ana Jalima de dama ko utal jabar 2021 bi. ana nag daf ma promise moom. ah, ah. man maa nekk Gambia léegi doo jël waa Gambia kii kii baaxut kii baaxut. <laughs> waaye dimbale ngeen ma am nekk ah, waa fii mu laa demal marché. ma di roof jëni. yow di yekkale ay jëli maa ne ñibbi man dafa guddi fu mu nekk nii yow tam yére mu noo ma yére maa ngi war dem julli ah ah dem bu dara naari jëli xam nga lii moo tax ah, Gambie du dem. ah because sometimes ah, su nekkee dëkk bu mel ni Sénégal ah journaliste yi ñëw wax seen artistes yi fu ñu kooku tamit ñëwu fañax mu nee ba bugg dee ñu luus ñu waxtaan waaye yéen da ngeen a ñu leen a raay di leen wa jalee fi cooc jali da nga war a takk jabar dëgg eh, neexut waaw léegi kañ ngaa takk jabar ah? su dee amuloo ku takk jabar man ma ah, yónnee la groupe man bugg naa laa takka one paak mu ne dafa ma bugg a takka man ma one paak léegi jali maa di man maa apply si yow waaw léegi da ngaa si jumaa ji. si jumaa bi. soo ko paa yi ñëw. waaw baax na jëlimaane kii di Lamine Cissé mu ne euh, Ramadan Mubarak. waaw waaw nuyul ma gars yi ñëpp ñëpp a ngi toog foofu nag di bëgg a jeexal sama crédit jëlimaane dafa war a ñibbi te dama war a ñibbi sama doom baa ngay jooy. xolam ko. waaw mu maa na. Ah. mu waaw yow bye bye ñu fanaan jaama dégg jaama. subscribe to Gambian Talents YouTube yéen a ngi gis guddi bii ñu ngi nii di liggéey ah dem na ngeen jëndal ñu gaz jëndal ñu essence ah. Adama Sow suma kii mbaa ngi gis nga kii mooy liggéey caméra bi moo ko amee. ah booy bi tamit artiste la moom it. ah interview woon ah sa driver ah nekkul artiste. kii mu ñëwoon si studio bi ñoo def ah. interview foofu. kon nag kon nag ay ñun Gambien tele ñun ñoo dee indi ku nekka gis nga ku kenn xamabut. den la dee indi groupe la waaye bés boo demee ba naaw. duñ ko déggawati ah. ah macha allah ma ne ko macha allah noonu la ah. so demee na ba nekk maasi jalima bi ma kool la soo ma uyiwutee dinaa la fàttali musa ah ne yo nak day jël nak jali nak despite all odds what dëgg ne yalla jali gis nga man xool ma xool ma gis nga man ni ina ma xool te ibada la ay rek be ma abal yére dama liggéey ba soona yére yëpp tilim billahi dama sona am soona wa gis ngeen ah tey ay da moma ma abal abaya bu nice bi jali ah man ah ganari kenenuma man maa ki nakala naka la ko ko tëral Amat Ba ak Henry Gomez ñu ne ganaari kenn nenul leen. kan la fi ganaari kenn nen. ah. yow mi.